yaa ngi nii ma yaa ah lii gars yi opportunité la nag prix yaa dem mayoo vingt mille boo laalee dix mille boo ba koy laal cinq mille. yi fii la am Sénégal waaw waaw mayo bii feneen lay jar boo tegee sa loxo dix mille boo ba koy laal cinq mille. ma gën xam ca Sadio la jógee. non non fas naa sama kalfe gàlla de. la fas naa sama kalfe dem rek li ma la wax. dama la mayo boo tegee sa loxo dix mille boo demee ba koy laal cinq mille nga yëkkati sa loxo ah, jëmale ko sama maya. ma ne est-ce que maa ngi nii yoruma lu ma lekk grand. Eh, samay cinq mille samay cinq mille samay grand bàyyi la li ngeen di def. bàyyi la li ngeen di def comme waaw ma ma ma ma yéen nii rek ngeen di def. waaw leen mooy seen mooy jàpp mooy jàpp la waaw. cinq tigga la <laughs> non non non non. <laughs>